muy tawfeex ju rëy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 ndax dama ne ko woon lu xew ci barab bii ci deux minutes rek laa koy résumé pour nu xam ne ñu ngi montagne sainte tubaab bi dañoo toogam yàgg ñu ne nan ko fàtt fekk ñu bind ne la lecture de rapport de Moussa Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou a été d'avis et l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces par ces soit oubliée au Sénégal nañ ko fa nañ ko nañ ko jël interné ko fii ñu ne kon nañ ko yóbbu Gabon suñ demee bu fi yàggee day day day def ñu fi jëkki jiitu rek day làqu ñu toog ba yàgg ñu ne nañ bàyyi ba guddi jot ñu ne nañ ko takk fetal ko garab gaa ngi fii mi ngi woon fii yéen ñi fi jiitu am ngeen am ngeen lu ngeen ci fekk ci ay jeex. Ah. nee na li desoon ci taatu garab gi ku ñuy wax alaaji Géey Murid Saadix moo ko dijjati yóbbul ko suñu ab lat biñ ne dañ koy def nag guddi gi comme dañ nekk ci guddi gi lañ koy def ñu jël ko di ko yóbbu foofu commandant bi jiitu ak naa officier yeeg yépp jiital ko ci lañ toog ba yàgg gis général ba ca France Jibril soppaliku ko la leen day bàyyi leen ko dama ko soxla li may wax mi ngi ci Irwaaw Nadim sëñ man Lamine Diop daganam moo ko yaxle nga gis ne guddi keroog ñoom tubaab yi xuloo nañ ci seen biir ñenn ñi lànk ne kenn waru koo faat ndax loolu taxuloon ngeen ko fi indi am na lu ñu dem ba tubaat yi am am lu leen ci naqar yi loolu dafa doy ñu ne nañ ko loterie yi ñi ëpp nag daal di ne nañ ko fetal sëñ Moodu Maxtaar mu daaru mar naan yàlla yàlla dellu leeram mooma ni bi nu koy bi Jibril waxee moom ba noppi mu ne ko kon bàyyi ko bàyyi leen ñu def li leen neex nee na bi ñu tàmbalee di ko marmaral garab gi di ko takk ci tànk yu wàq yu lañ tàmbali di ko takk ba nii ci droit de l'homme buñ ne dañ lay exécuter ñaar lañ lay wax ne la may nañ la ko lan ngay mujjee wax ak ndax ñu takk say bët nga bañ a xool niñ lay niñ lay niñ lay def ñu ne ko ndax ñu takk say bët mu leen matu ko looy looy mujjee wax mu kañ suñu borom ci seen kanam ñu jël douze tireurs d'élite ak lieutenant bi nga xam ne dane su ngeen dóoree ba noppi ba ma xam ne làqu na ma doog a tàppe yaari cour d'assure fii mu daal dina dama naan cinq fekk bi ñu ko marmarelee ba noppi nag ndekete ahlu badrin gi wàcc moo leeral dëkk bi bañ foog ni fajar jot na moo tax ñi ko see fekke bari ñi jiitu Gabon fekke nañ fi ñoo xam ne dañu leen daan wax naan fekke naa ko parce que leeraay bee tax ñu foog ni xëy jot na nii la demee te nag biñ dóoree nag bal yi fekk dana leen dama naan cinq quatre trois deux un bu nee zéro nañ dóorandoo bi ñu dóoree nag pënd bi ñëw bi pënd bi wuree lan gis officier yi kenn ku ne fa nga waxoon gis nga ñooñu dañoo xam ne doomu aadama am na juróom-ñaari pàtt foo ko ci jam dafa war a faatu kenn ku ne dàkk na foofu ba pare amaat ñeneen xoolal juróom-ñaar ñu def ñu dàkk foofu te duñ moy ñoo ñëw weñ bu doon naaw buñ ko fetalee mu daanu loolu rek lañ jàng loolu rek lañ leen jàng kenn ku ne nag fa nga da waxoon ne fa ngay dal fa ngay jëm sëriñ bi ci sa xol nga yéene ko falal la bal ba dal nga jaaxaan lieutenant bi nga xam ne jotul woon a tiire ñoom moom moo gis ak yeneen soldats yi ñëw gis nga armée saa su nekk contingent bii ñëw def benn affaire am na beneen bu des ñooña nag ñoo gis ahlu badri ñu daldi mel ni lu jaaxle keroog rek maa ngi koy déglu barki démb Serigne Sambay mu wax ne bi ñu bi ñu bi ñu toogee ba ca suba ga la ko commandant bi woolu daal koy woo ci bureau bi am naa du sori boor yi loolu seen Cheikh defal ma ci gëstu ñëw daldi koy jox fauteuil yi pour mu toog ci toogukaay mu ne mu ne ko waxal li nga may doyee daal di copp ndayu mu ne ko yow dafa mel ni dangaa am ñoo àndal sëriñ bi ne ko ñooñu ñu mu mu ne ko déet ñun li nu gis gis nañ ni am nga ñoo àndal yoo xam ne tey boo doon xeex ak ñun xajuñu ci ñun ndax alu badirin keroog lu toll ak genn wàllu xasaf ilaa sirina xasaalaw maa xiyulihim wa xaafal idaa minhum wa maalo ilaa salam hmm. sëñ seex diix moom sëñ mu laay waaw waaw ñëw na fi jeex na hmm. seex dama ko doon waxtaan loo mu def hors sujet mais hors sujet bi daa neex murid euh, yi sëñ mu laay laal suuf léegi nag bi ko tubaab bi ne dama am rek lu may leeral bi ko tubaab bi ne nag ndax yow sëñ bi ne ko waaw ñooñu de ñoo mën a ànd mu ne ko lu ñu doon ci yow sëñ bi xool soldaar yi ne ko ñii lu ñu doon ci yow mu ne ko ñii samay soldaar lañ mu ne ko ñoom ñooma yem mu ne ko ndax boo leen waxoon tubaab bee laaj de ne ko ndax boo leen waxoon ñu dal suñu kaw dinañ ko def sëñ bi ne ko ndax mës ngaa wax ñii ñu def ma nàngam te defuñu ko mu doog ko ni nag ndax dinga leen wax ñu dal suñu kaw sëñ bi ne leen nag surga fa muy gont la xam waaye fa muy xëy xëllëg xamu ko bu ko suñu boroom dogalee rek ma wax leen ko xam ni bokk na ci li tax ñu woolu làbbe yi suñu saako nee na keroog làbbe yi dañ na waaw maaraabu bii bu leen ci gaaw leeram gi sar na ci asamaan ba sar fi suufi xarnu bi làbbe yi naan ko nan maroo soldaar si naan ko bun waroo tubaab bi naan ko bun merewul ñibbil yilif nga xarnu bi yonent beeg ahlu badar ñoo dàkku quartier yi ko wër saytaane nërmeel di ser gabon ñuy daw ci xarnu bi loolu laa doon ubbile sëtu sëñ Tuubaa bi Mbàkke nag noo ngi bég ci yow aouzu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi sant yàlla baax di ñaan sëriñ du wéet du wéet lu ko waaye tubaab bi ak seenu mbon ak seenu sànq bi nanoo sànq sëriñ bi ñu jële ko foofu yóbbu ko ci car militaire yi ci soldat yi mu nekk muy doy waar ñu koy nopp ak seen sàngal si di naan sàng di ko buus di ko xel seen secret mbooleem luy noof mbooleem luy métti ñu koy teg moom sëriñ mu ne dinaa ko muñ dinaa ko musloo comme malaayka yi nekk samay mbagg kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun comme mi ngi ànd ak ñoom tax ñi ngi mën a dékku lii moom it dana ko fas yéene muñ dégg loolu kon loolu waaye dëkkun dëkkun di defar sëriñ bi di ko lool ba am benn bis ñu génn rek di def seen entraînement yooyu def amul lu may rek seen kanam ñu gis ay fas ay jëmm nekk ca sol weex tàll seen kaal yi wàcc ba seen mbagg bi loolu ahlul badri ni ko war nu yëgal sëñ bi baax a baax ci lim mu doon jaayante diggam ak boromam démb ci waxtu yi suma jumul ñu ngi woon làmbarde li ma ci wax lu tuuti la am na benn ndaw boo xam ne fu ñu nattu ak beewam ak jégg dayoom maanaam li ñuy wax ci ñun maanaam ak reewale fu mu fu mu toll rek weesu na ko ñëw ci sëriñ bi jaar ci aw turam sàllal ko jaar ci aw turam ko ne ko wattuma sama maam mu daan rey awliyaa Ibrahima yépp sëriñ bi gëdd joxañ ko xalima gi ne ko doo say maam ma ne duma ña maam daan rey ci la tiit ba far rek noonu la yooroo dem loolu nag nuroo naag yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xamee ne am na benn yéefar ñëw fekk ko mu tëdd nii mu yor jaas xàcc ko wutili ko ko na ko ana moo tee ma rey la tey yonent ko allah yàlla mu tiit ci jees bi yonent bi jël na ko yow ana kan moo tee ma rey la mun ko ana ah, yow gis nga ñaari ñi nga yonent saa salaama maanaam Sëñ Tuubaa gën ko bëggoon lu ci bari dañ koy murulee yàlla dimbali ñu ñu jaar Libreville dem maa yomba wàcc Lambaréné ijaaruduuni ilaa qawmi saadat naa boobu mu binde ko foofu yàlla tawfeexal ñu toog ca barab ba di ñaan kon war ñoo rafet jox baax ne la Sëñ Tuubaa doon ñaan dal nañu baax baax sëñ bi nag li mu doon liggéey lépp leer képp la woon jële ak neen ak shirk bokkaale xalaltu baatilan bi xaqin basaraq daaneel na ak neen barra anil ilahu min shirkin wa min kulli nifaaqin wa saadati dalil ñëw li ak shirk li ak bokkaale moom la doon jaayante ak su di ko dindi bu ñu xoolee ñun ma état bi ñu jaar yépp daaw nam mu koy jaamu yàlla di di ko xoñoñal tey ak njabootam su ma ne njaboot sëriñ bi ñépp a ngi di jaar foofu di fi yëkkati kàddu yàlla mbooloo di fa julli alxuraan xasida yi mooy barab bi ñu jaar yépp yoo xam ne aw mettit ak buntu xataal ko ak bañ mu nekk fa rek lañ ko def kon loolu mooy wane ne am na ndam ci diggam ak boromam li mu lépp suñu boromam fay na ko tey te fay bi ñun dañuy ñëw rek di confirmer chaque jour rek ñuy gis lu gën a yéeme loolu fi may jeexalee mooy mbokk yi ma tàmbali ko di ko laayee biiree ñu nekk ci fii ci Gabon rawatina ñu nekk ci jumaa ji di Mouta Sénégal waaye actuellement nekk ci rajo bi di liggéey rawatina ñi ñëw fii ci Kaolack ma xëy na xër dana tàbbal ñu bari ci yu baree bari waaye yoon yi jaar di dem Mayoro daf cee bari. lu ñuy jël di ko film di ko vidéo fu ñu romb na Sëñ Tuubaa jaar na caad foofu di xelli bu ñu wax ne sëriñ bi dafa jàpp wala dafa wala yu mel noonu bi li mu bind ak li mu am ñu mën koo war a gën a waaye jumtu yooyu day bëri trop dañuy juum di juumloo ay junni junni nit mbaar moroom nga sëñ bi fii la mbaar mi doon seeroo fii doon bindee garab gooroom ne fii la loolu mbokk yi ay juumte la nañuy bàyyi yoon wi fuñ jaar loo gis mu mu yàgg rek nga ne sëñ bi nekkoon fii te sëñ sax amaan sax amaana jëla ko loolu ay juumte la te juum juumaaleel mbooloo rawatina nga juumaal nitu yàlla rawatina seen juumaal nañuy diima wane li leer sëñ bi bindu ko mu leer nañ ak li nettali mu leer waaye loolu xir dana tàbbal nit ci ay njumte yu bëree bëree bëree bëri yoo xam ne jëru lu mat a bàyyi xel la lu mat a waxtu la ku bëgg a wane am nga lu leer lu set lu sell loo xam ne borom xel mu set a sell mu ko dégg rek xam ne li sëñ bi la loolu lu mat bàyyi xel la di wax wax sëñ bi sëñ Seex xam naa sax jàll na ñu identifier mboolem barab yi sëñ bi nekk jaar-jaar yépp ba ëllëg ñu mel noonu bu ñëwee dañ man a xam ne fii nangam la fii ak fii ak fii mhm. muy gëstu yu leer ñu teg ci xam-xam teg ko ci yu leer naa nga xam ne yu mel noonu dana dana dana dana wàññi ko bu baax nga xam ne kenn du ñëwati rek ñu ne la fii la rek nga ne fii la nit mën naa juum juumaale la mhm. Sëriñ Tuubaa na xasida la aussi bon bu baax la ñu bari xam ne dafa delloo askanu Mbàkke la ko suufee ne leen yéen ñii yéen ñi nga xam ne bu leen jubee jubal ñu bari waaye bu leen dëngee dëngal ñu kon nag lu jar a wattandiku la maa ngi wàcc foofu di wax rek eh, asalaamualeykum wa taala wa asalaamaaleykum sëñ Maama ñaari baat rek ma joxal la micro xam nga yàlla daf ma boole ak seen Cheikh Mbaye bi muy jëwriñu Caravane yàlla toogalee ñu bokk benn daayira bu ci ñun kon seen Cheikh bu toogee fii gërëm ñi nga xamante ni taxawal nañ Caravane ba Caravane bi mën a yëg si fii ñun ñi nga xamante ni. danoo ànd ak moom liggéey bi am na gërëm loo xam ne nit ñi war nañ ko ko gërëm waa caravane bi yëpp nag noo bool ni ma seen cheikh bii nañ ñu ko gërëmal santal ko bu loolu weesoo nag muy wax sëñ bi nañ ko ñaanalal bu baax mu yàgg lool suñu kan ndax seen cheikh wàcc na boos boppam ba marché ñun lu ko waay wax neex na lu bëri buñ ko buggee def mu mun ci jëli ndax man damaa xaw a fàq yenn saa yi dama jóg bu def naa nga moo naan ma sëñ as déedéet wala baatoo bi ni ma déedéet déedéet liggéey na lu fi na liggéey rek bul topp kenn bul xuloo kenn bul xeexal kenn bul ko baax dinaa ko def xëy sëñ bi seen cheikh mi nag ma ko ñaanal mu yàgg loolu suñu kanam sëñ Omar Thiam moom ñu doon tudd léegi am na benn mbokku taalibe boo xam ni. a jooy ni ma sëñ As sëñ Omar nag ma ko ñaaral ndax fii ci maa la ni ma may naa la pàkk ca Touba mu nekk gàmm yi di jàngkat yàgg bëgg pàkk Touba loolu mënu ko am kon loolu nit ki bu la defalee teraanga na ko ko wax ndax jàngkat yi bu leen teral rek ñu nga teral loolu loolu laa ci doon ñaaral xam nga gudd ñaaral waa Caravane sëñ As loo ñuy ñuy mel ni koy xaw a wër sax woyofal ko te fekk woyofu. dëgg la sëñ Moussa Seck Gambie mais sëñ bi. Ah. Gambie la toog. Mhm. sëñ Tuubaa feeñ ko bii. Mhm. Mhm. moom la woo ne ko man de dañ maa wax ni Gabon nga nekk. ndax Kaolack la dëkk. jógee na Gambie ba ñëw Sénégal amul passe bu ko indi waxuma la sax maanaam dara waaye moom amul passe bu ko indi Gabon. ba mu ñëwee Sénégal danañ ko joxe pass bu gën booba mu jot mu ñëw moom moomu nag Omar Dieng xam na parce que sam xam na ak cantam moom la jox pass Touba. Ah, waaw bu ko ñu xam ne jëf la joo xam la tax mu def ko parce que sëñ Touba dong la tax mu def. boobu mooy oto bi bi may wax ne ci lañ ne woon di yëngu. ci la ne di jàng. nga xam ne am na njàng moo xam bi ñu koy jàng man maa ngi nelaw. mais maa ngi géntaat jàngi ci biir nelaw xam naa nelaw lu neex laa nelaw foofu laaju naa fi léegi mu te ne ko yemuma foofu sax boole naa ci tonn ciment loolu nag Touba moom ku la fa may kër dimbali la si ñablaat mooy woon kenn kenn sa pujjut nekk mooy sa seere ëllëg ci kanamu suñu jërëjëf si ma xam yàlla lu yomb kon ñun ñëpp kàddu gi ci des di kàddu suñu xam moom la ñuy déglu yàlla na faj aju li may wax ñi nga xam ne si ñoo nekk fii ci dëkk bi te bokk ci ñi nga xam ne si ñoo yor wàllu karawaan yi muy commission yëpp dana gën a tax dana góorgóorlu dana nekk ci liggéey kenn ku ne nga jàpp ne liggéey bi sa liggéey bopp ndax liggéey bi Sëriñ Tuubaa am na yëg la waaye amul tànk dañ leen ci góorgóorlu xam ne ñii di ñëw de suñuy gan la ndax njabootu Sëriñ Tuubaa benn Sëriñ Tuubaa nag ni ñu leen war a teroo mooy ni ñu leen di teroo ci màggalu Tuubaa kon nañ ko gën a bàyyi xel te gën ciy góorgóorlu gën cee am pëstéef suñu lépp ñu def ko ndax suñu lépp Sëriñ Tuubaa adduna ak alaaxira Sëriñ Tuubaa te ñu mel ne ay murit nag nuru ay suñu maam Thierno ak cant. daa baax waaw incha allah dégg nañ alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin seydina muhammadin wa ala wa ashaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi nuyu mbokk yu fi teew yépp di leen nuyu ci turu Cheikh mu Mountakha di jot li rek ay kàddu ma ànd ak délégation bi sëriñ Mouhamadan ak ñi àndal ñëpp ak ñi fekk ñëpp di wax ne dégg nañ kàddu yi sëñ Cheikh Mbeng yóbbante ci sëriñ bi muy kàddu cant jóge ci waa karawaan bi ñépp karawaanu Mayomba dégg nañ ko bu baax incha allah dinañ ko jottali nii ngeen ko waxee sëriñ bi itam mi ngi sant bu baax ci taxawaay bu rafet bii ngeen taxaw yéen waa karawaan bi ànd ko ak njabootu sëriñ Fallou Bousso mbooleem ñi ngeen ko àndal ñëpp ku leen juum waaye lim ngeen leen fi léegi kon ñëpp xam nañ ko kon sëriñ baa ngi leen di sant di sant mbooloo mépp di ko jaarale ci yéen ndax liggéey bi maa yomba liggéey bi la waaye nag yéen yéenay bunt bi kon kuy sant mbooloo mi fi teew yépp mën na koo jaar ci yéen kon ñu ngi leen di jot li cantuk sëriñ bi ndax a ah, lii kat liggéeyam Sëñ Tuubaa bu réy la te liggéeyam Sëñ Tuubaa bu taxawee kon ginnaaw Seex Mamadu Muntaxa moo ko fi nekkal kon ab liggéeyam la kon ku koy def dafay mel ne moom nga ci jàppale kon mi ngi leen di sant bu baax a baax a baax ah di ñaan yàlla itam nag ñu yàgg koo def ba mu àgg fu kawe njort ñu ngi koy ñaan bu baax liggéeyam Sëñ Tuubaa nag moom mel na ne fu tollu toll rek boroom a ko fay tollale lu ci war a tàmbali ci boroom boroom boroom may jàpp na loolu yoon wi nag muy yoon wii yoonu Gabon daanaka jëru sax ñuy dellusi moo ñu fi ñun ñëpp waxtaan yépp ci la jëmoon euh, waaye lu ci mat a wax lu ne lañ ca xam mën naa ne ñépp yëkkat nañ kàddu yooyu li ci njëkk a am liñ ci mën a wax rek mooy bi sëriñ bi jóge senegal jëm si fii bi duggee ci gaal gi rek ci la waxee ne allamani rahmaana fi safina bi anna ni xadimusil madina kon dafay mel ne bi mu duggee rek tàmbul liggéey boobu rek ci la daan nekk ci la daan nekk xaadimu rasul ndax noonu la ko waxee ci la ko suñu borom xamale kon mel na ne ba mu ci ba mu duggagut ci liggéey bi tuddagu ko waaye bi mu ci duggee rek ba du yéeg ci gaal gi rek la nekk xaadimu rasul bi nga xamee ne yàlla dogal na agsi na fii itam ci Gabon comme ni mu ko waxee yasara lil mun naa la daal li man xaadali maa xaada xam kulli yi loolu dafay mel ne bi mu agsee Libreville rek nee na suñ borom jox na ko fi xéewal koo xam ne ay may yoo xam ne maanaam fàddu na ci bépp wàll yu maanaam benn wàll yu mënut am li ko suñ borom jox fii ci tënk li fi sëñ Mamoor mi doon nett léegi bi nga xamee ne doon nañ ko jéem a génne àdduna takk ko ci garab loolu sëriñ bee ko waxal boppam mm. waxabalil waxaabu fii sulaasa maa yox jilul xasrata wa wax ne suñ borom day may na ko may goo xam ne ci ay may yoo xam ne gecceel na fukki soldaar yooyu ak ñett yi Maamoor doon wax nii maanaam may goon ko may gecceel na leen ñoom loolu sëriñ bee ko wax kon Euh, sëñ tuwaay yoonam bi leer na naññ euh, xéewal yi mu fi jëlee itam leer na naññ def naa jot nañ lim ne def naa limoon am na yu lu ma ci jotoon a lim loo xam ne sëñ bee ko bind euh, sëñ bàyyi daam limaatoon na ko kon loolu buñ ko buñ toppoon it dañ fi fanaan rek mm-hmm. waaye nag buñ buñ seetee ci xel rek da mën a wax nekkoon yëf yi lu mënoon a gàtt la maanaam mooy tubaab bi nga xamee ne jël nañ sëriñ bi biñ ko indee ndar dafay mel ne biñ ko biñ ko tëjee lañ koon def loolu lépp nangu lam lañ koon def loo nanguwu ca dara bañ boole ko gaynde ak la ca xew na ko na suñ borom def gaynde ga mel ne am xar ci kanamu sëriñ bi kon dafay mel ne tubaab yi bu fekkoon ne bu fekkoon ne eh, da ngay da ngay xam am nañ xel wala amuñu xel waaye da nga naan ba amoon xel te yeewu kon loolu moom naa yem foofee mm-hmm. waaye nag li alxuraan di wax rek summa llazina kafaroo bi rabbihim yaadiloon waaw mi nga xam ne dañoo weddi yàlla moom dañuy weddi jamono yu ne rek kon dañuy jàpp ne xam naa ne bu buñ gisee ne dex nañ am na luñ def ndax buñ ko taggee fii ci garab gi ak na mujje kon dafay mel ne waroon naa mën a yem foofu waaw waaye ñu jàllaleeti ko ñu ñu maanaam bàyyiwuñ ndax pax ah, miñ gasoon def ci sawar taal ko ak sawara ba mu yànji suñ maamoo tudd na ko léegi waaye sëriñ bee ko sëriñ bee ko tuddal boppam hadama rabbi ma haddu xafar wasaana ni xamal nafar li dara rii la wax waxaat li xaman kafar wasaana ni xaman kafar xadama rabbi ma aduwiya xafar li dara rii wasaana ni wasaana ni xaman kafar wane suñ borom day pax mañ ma gasaloon màbb na ko suñ borom ma lay maanaam mooy yéene dañ ko yéene woon ak sawara wañ ko dugaloon suñ borom musal na ko ca fegal ko seen jëf ju bon joojee loolu niñ ko wax loolu ah, sëñ bi sëñ bi nettalil na ko boppam wax ne soxna jaara moo ko génne ca pax moomee waaye ni ko sëñ Moustapha Lo nettalee woon moom it ah, daa wax ne sëñ Cheikh Abdou Khadir Cheikh Abdou Khadir Jeylaani moom moo ko njëkk ñëw ci wàll yu ba koo li mu ne ko bàyyi ma ak sama borom rek gannaaw bi nag la soxna jaara ñëw génn ko ca pax ma teg ko fee kon loolu itam wax dëgg yàlla danañ mën a xam ne soxna jaara ma ak mayam suñ borom yëmaliwu ko fenn ci moom ba loolu jàllee itam lii ñu fi doon nettali wa ahlu badr feeñ guñ feeñ fii dafa mel ne feeñ na fii waaye day feeñ waaye day mel ne feeñ na itam ca dëkk bi jaaroon waa jeewal waa jeewal fii laa ci biir biir jaaroon làmbarane day mel ne feeñ na ci làmbarane yow suñu maamoon li nga doon nettal noonu bi hmm. ko maanaam bi tubaab bi tubaab bi wax ak moom ci loolu dafay mel na làmbarane la ndax booba sëñ baa ngi booba sëñ bi yàggaatu fi xam nga hmm. waaye feeñ na fii itam feeñ na fii ci fii moom mooy bi ñu ko takkee mm-hmm. kon day mel ne ñaari feeñ yu yëpp feeñ yu fës la mm-hmm. waaw liy xaada ak la batin usoda man sax saxal waasiya wal xasoda comme ni ko sëriñ bi waxee kon nga xam ne daal sëriñ bi moom yoon wi da ko yaxalal boppam lu lu lu lu maanaam gëstu ko dee leeral waaye sëñ moom lu ci bare bare bari bind na ko xëy na na muy bind nag mën nañ mën nañ koo yeex xam waaw na muy bindee mën nañ koo yeex xam waaye day mel ne lu ci feeñ rek boo jàngee bayit wa dala koy daal di leeral nañ ñi kon sëriñ bi lépp moom bindal na ko boppam leeral na ko boppam loolu it naa ci waxaale tuuti muy li sëñ seexu naa doon wax léegi ginnaaw sëriñ bi moom ay mayam kenn xamuñu toll jërul di ko jërul di ca yokk dara yemal fa mu rek buñ ne lii nga xam ne lu wér la sëñ bi takkoon nañ ko fii ñëpp di ko ñëpp xam ko muy ak garab sëñ bi nett li gën a garab wala ca mujjoon dañ ko yor sëñ Abdul léegi ñu ñu def fi ab teen kon loola màndarga la loola lo lo lo loola màndarga bu la dara gën ko am solo kon nag jërut di ci yokk leneen te boo ci yokkee leneen rek am solo wala nga maa yomb nga fii lañ takki woon sëñ bi lu ne noonu njuumte yooyu xam nga histoire ginnaaw dañ koy soxla na leer rek ñëpp mën koo jariñoo waaye bu kii waxee lee kay wax lee kële wax lee kële wax lee day daal di day daal lëndëmal day daal lëndëmal nit ñi waaye ca ginnaaw nag sëriñ bi bind na gëstukat yi ñoom itam gëstu nañ lañ cay gëstu ba teg ko ci yoon nañ fas yéene loola gën a nañ fas yéene topp loola rek leneen lu ñu feeñaatee ñu xam ne feeñ la ci ndax yàlla mën naa dogal dem yaakaar naa histoire sëñ moom dana am lu feeñaat ndax tubaab yi àndoon moom dañ doon bind gis ngeen photo bi feeñ bu yàggul hmm. leneen it mën naa feeñaat ci ci ay bind walla yeneen ak yeneen kon nag lu ñu feeñ ñu xam ne suñ benn mu feeñ bu boobaa rek ñu xam ne lii moom noonu la demee moom kon daal ñu ngi bañ a guddal ñu ngi sant ñépp ci loolu bi sant na leen bu baax a baax ah lam ñu fi yebale woon day bu ñu àndee ak yéen ñun lañ yaakaaru lépp gis nañ ko kon nag incha allah dinañ ko nettalee noonu sëriñ bi cant gi ngeen ñu yóbbante ci moom it danañ ko ko àggale incha allah sant nañ ñëpp nag ah, yàlla na yàlla may ñu fekk ak heure yu bare bare bare joxo suñ gi itam ah, ñu leen sant bu baax nag ndax ni nga xamee noonu lañ ko yaatale ànd ko waa karawaat bi ñëpp ànd ko képp ku mën a ànd ak ñoom ndax moom par bi ñu ko seetlee itam yàllaa dogal mu feeñ ci ñoom waaye liggéey murid yëpp la loolu na ci murid yëpp bàyyi xel maa yomba moom yaakaar naa <laughs> kenn du ko bàyyee kenn <laughs> am naa yaakaar ci ne itam buñu ne ba ci tuuti am naa yaakaar day dana dana dana àgg fuñ ko foogee bu tool itam nag waaw am nañ ci yaakaar bu baax ndax ndax liggéey maanaam sëriñ bi euh, moo moo barkeel ay mbir mbiram moo barkeel ne mu loolu ba nëgë fii kenn xamut kenn fi ñu takk garab yi kon kenn xamatu ko waaye mbirum sëñ bi ma barkeel fu mu mos a jaar julli fa ñaar raakaar muy ab dëkk muy ab àll boo demee gis fa màndarga kon loolu suñ borom moo ko defal sëriñ bi waaw kon nag moom alhamdulilah rek yàlla nañ ci yàlla may ñu yàgg koo fekke ànd ci ak wér ànd ci ay xéewal yu bare bare ànd ci nag ak fekk ak tal yàlla nañ ko suñ borom defal yàlla nañ ci am gërëmul sëriñ Tuubaa waaw baax na waaw baax waaw baax na sëñ Thierno tam mi ngi leen di nuyu bu baax ndax moo waroon a ñëw yàlla dogal sëñ bi nekk la ko ci yeneen yitte loolu moo waral ñun ñi ñëw ne kon bu toll loolu nam ko daa ànd ak yéen noonu la koy ànd ak yéen sant na leen bu baax a baax parce yàlla bi ñëw itam yab nañu lu bari ñàkk ñëw bi tam metti na ko daa xam ne rek digal li ginnaaw jóg na itam jëm ci leneen kon bu ko defee ñun ñu wóotu ko ci rek ci ndigalu sëriñ bi waaye sant nañ ñëpp nag jërë lépp tabaraka léegi sëriñ Cheikh Khadim Fall tam jërëjëf waaw lii man naa ko tàmbalee ñaari junni mu bëgg ma deux cent mille ñu def ci addi si lii bu sëriñ Mountakha ñëwoon ñun ñëpp dañ fekk addi sëriñ bee fi bu dee loolu dëgg la na mat deux cent mille ñu jox ko sëriñ bi addi si bu bëgg xaalis yomb nan fexe li mat Bismillah donc jërëjëf jërëjëf deux cent mille daal laa ba noppi pour génn fii tëjee lu gudd boobu caabi ko ah bi te bu boobaa kon bu réer bi kenn kenn

ëpp moom du ko def da nga naan teg waaye kenn du wax ëpp nag c'est-à-dire du ëpp c'est-à-dire day teg waaye du ëpp xanaa Serigne Saliou bu ko fi nekk si yëpp la si yëpp la Saliou daa mel ne am na lu ñu si toll lool si toll